bàyyi Barcelone gu yukki-yukki nag fi mu toll nii gars yi catalan yi ñi nga commencé nag wër seen bànneex di doxal ci résultat yu am solo Cristiano Ronaldo mi ngi ci biir ñaari équipe bi nga xam ne nag mosunoo dégg mu ñal ci biir championnat bi léegi championnat Espagne indi nañ ko tey entraînement bi nga xam ni Arajo ak i mbokkam def nañ ko Sénégal gu nar a football ca kanam loolee tamit daanaka bëgg nañ ci indi ay leetar gars gërëm naa leen sant leen ñaanal leen jàmm ak salaam borde bi tay la gi na ci ñëpp dem bàyyi ko xel bu baax a baax ci dëkkub Seydi El Hadji Malick mi nga xam ne sell ak def lu baax ak jëf joojee tey jii moo wagarlu ba bis bi mën a nekk bis bu ñëpp yi bàyyi xel Barcelone ma nga noonu ngeen gis ko bu baax a baax daanaka moom Barcelone bokk na ci équipe yi nga xam ni ki mësta dégg mu ñël ci championnat bi loolee nag nekk lu ñu mën a teg loxo teg loxo nag mooy avertissement amoon na bu ma leen ci doon wax fan yee passé di leen wax ne raam gi nga xam ni gis naa ko Barcelone di ko raam ci championnat Espagne ak li nga xam ne mooy Ligue des champions safi boole ko liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la sell mucc ayib loolee bu ngeen deful ndànk gone catalan gi dana indi ay coppite ci saison bi nga xam ni dana baax lool. entraînement ba arajo ak ay ñoom gaveek ñoom ñëpp daje na nag ñëw entraînement boole ko xel bu sedd ak mbégte gi nu fa àndal ndax seen xool sedd na ñooy leader. seen xool sedd na déggoo am na renfort de taille bi nga xam ne gone yi am nañ ko loolu lépp baax na. yaay Sadio Mané ñancu international xamle na ni Sadio Mané dem googee mu dem ca Dubaay kontaan na ci bégg na ko rabaj rabajee na ko loolee sedd na xolam te mooy suwaa bi nga xam ni mooy suwaa bu baax bi nga xam ne ñancu international def na ko gaay suwaa bi bu leen fàtte ni journaliste bi ko njëkk a laaj loolee Aladji Malick TV les gars yi kon gërëm naa leen sant leen ci loolee jàppale gi ak ànd gi ak topp gi mbég nañ ci bu baax a baax def leen seen i abonnement bu ko defee match boobee ngeen mën ko am ndànk nag Sénégal dana daje ak équipe bi la di Zimbabwe loolee bu 17 jotee lay doon ca stade de la Dior match boobee nag match pièce lay doon ndax gone yi euh, Zimbabwe wala bokk équipe bii di Mozambique dañ leen a indiloon ay jafe-jafe ci première match bi deuxième match bi yomb benn yoon na ko ñëpp bàyyi xel gars yi jërë ngeen jëf